ziare bu baax euh, dikkaat nañ ci beneen vidéo beneen vidéo bu bees boo xam ne ñu ngi ci bëgg a wax naka ngay partager sa position ci WhatsApp maanaam daf lay doy nga envoyé benn photo euh, WhatsApp nga boole ko benn position boo xam ne si bu ci euh, ki nga envoyé sa bu sa correspondant nga xam directement sa position fan la. Euh, ci vidéo boobu lañ doon dikk ñu tamit euh, benn affaire bu ndaw bu dee abonné ko nga bës euh, bouton jamono bi ci rond vidéo bi bu ko defee nga bokk ci chaîne bi bépp vidéo bu ñu dugalaat rek di nga ci jot incha allah kon ñu dem boo duggee whatsapp boo duggee whatsapp léegi whatsapp mi ngi nii boo duggee fii fii ngay envoyé photo yi logo appareil photo bi boo cliqué ci kaw nga yéeg pour euh, am benn photo mën nañ cliqué benn photo rek benn photo euh, bi léegi photo bi nga fekk photo baa ngi nii boo ko bëggee envoyé boo bëggee bind texte da ngay ñëw fii nii ci logo bi lii nga cliqué ci kaw logo bi boo cliqué ci kaw logo bi baa ngi nii beneen nii gis nga logo bi ngay gis nii bi am signe kii bi bu sol bi fii ci ngay cliqué boo cliqué ci kawam mu génneel na lii. léegi fii nag euh, parfois su fekkee activer woo sa position bi bon dina la génneel benn blocage bu ndaw ni la activer votre position boo ko defee soo cliquer foofu mu la activer loolu dina la diriger directement fi ngay activer position bi soo ko activer nga wàññeekuwaat mais ko man activer naa ko ba pare lii damay génneel euh, xaaral léegi euh, désactiver nañ suñu position pour nga comprendre su fekkee fekk na la activer sa position fi ngay jaar. léegi kii baa ngi nii baa ngi nii boo kilikee ci kaw gisoo directement lii lay wax GPS désactivé afficher les paramètres de localisation fii dangay def ok boo defee ok mu gi mu diriger la gis nga fii la lay diriger boo ko defee nga euh, coché fii nii boo coché fii nag nga dëppaat voilà léegi boo dëppaatee pardon waaw boo dëppaatee mi ngi nii léegi euh, da ngay am kii normal léegi sa position mi ngi nii Sarène bis gisoo comme maa ngi Pointe Sarène euh, Sarène bus euh, Papa Bonheur Kër euh, Damel gisoo yëpp ay kii la ay suma ay adresse la yoo xam ne si day concerné Pointe Sarène léegi soo cliqué ci kaw Sarène bus ji gisoo affaire baa ngi nii bu la neexee nga lu la neex nga defee ko ni lu la neex léegi euh, mën ma def benn texte voici ma euh, position ma position actuelle voilà voici ma position actuelle ma ok su ok léegi euh, envoyé naa ko waa ji waa na ko bon léegi euh, soo ko envoyé waa ji nii lay jote photo bi nii ak euh, saareen bi ji wala sa adresse bépp adresse bu mën doon bu ko jotee nag day cliquer ci kaw saareen ci kaw photo bi mu génneel ko lii mu cliquer ci kaw saareen bis ji mu defal ko lii voir la voir la localisation lii mu cliquer ci kaw mu cliquer ci kaw bi nag mu diriger ko directement ci. Euh,